mbokk alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi war a jël tey ay juróom benn fukk ak juróom ci suratul an'am ay 65 في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم نعم في page 135 bi kooku gannaaw ba ñu sante suñu boroom subhanahu wa taala yàlla dogaloon na àllarba ji wees gannaaw weeru koor wu mag woowee jëloon nañu suñu njëlbeenu daje ci tafsir yi ñuy amal ca àllarba ca guddi tey jii mooy tolloog ñaar fukki fan ci li ñuy tuddee weeru shawal sun maam yi daañ ko doon wax weeru kori ci 1439 di le 4 ci weeru juillet 2018 ñu nekk ci saaru mag wi di suratul an'am nga xam ne ñëw na ci lenn ci tafasir yi ñuy wax ne jibril alayhi salaam bi mu koy wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi yépp la wàccee ndoo benn yoon te itamit suñu borom boole woon na ko ak i malaaka ñu fees dell asamaan bi di sabbaal ba baa loolu pare ndax la ca nekk ci màggal borom bi jël waala kon ñu ngi war a jël tey ay juróom benn fukki bi ak juróom insha allah su dee Cheikh Ousmane pare na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون فكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom subhanahu wa taala mu ne yow yonent bi qul wax leen ne huwa alqaadiru mooy aji am kattan ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum ci yónni li nga xam ne mooy mbugal bu jóge ci seen kaw aw min taxti arjulikum walla mbugal mu jóge ci seen suufi tànk aw yalbisakum shia walla mu daldi leen di def ñoo xam ne nii ay parti la ñuy doon mu séddale leen def leen ay parti wa yuziqa baadakum baasa baad daa di mosal benn ca wàll ga ayul ña nga xam ne ñooy ca beneen wàll ga unzur kayfa nusarrifu l ayat xoolal nag ni ñuy teqalee suñuy aaya laallahum yafqahuun ngiri ñoom ñu am ak dégg mooy comprendre wa kazzaba bihi qawmuka wa huwa alxaq sa xeet bii day weddi nañ alquran ji ca moo ne mooy dëgg de qul lastu alaykum bi wakiil neel du man day may koo xam ne maa leen di ware fuglu di leen garde li kulli nabain mustaqar bépp xabaar bu bawoo ca yàlla day am na waxtu wum war a saxe mi ngi noonu war a tàbbee wa sawfa taalamuun xel sa ngeen a xam wa ida raayta alladina yaxuuduuna fi ayatina soo gisee ña nga xam ne dañuy nekk di xuus ci suñ biir aaya yi fa arid anhum dummooyul ci ñoom xatta yaxuudu fi xadiisin gayri ba baa ñuy xuus ci wax bu bokkul ak wax joojee ñu nekk wa imma yunsiyannaka sheytaan su dee nag dalaa fàtteloo sheytaan fala taqud bada zikra bul toog mukk gannaaw fàtteliku ma alqawmi zalimin ànd ak xeet boo xam ne xeeti tooñkat lañu mi ngi noonu mbokk bi ñuy fii mujj ci àllarba ji wees suñu boroom jalla wa ala mi ngi ñu doon wax peeg gi nga xam ne peeg na ko ay jaamam bokk na ca ne moom moo yor caabi kumpa amul lenn luy xew ci àdduna lu dul peeg na ko ci xam-xamam du la nit ñiy def wala jinne ya wala malaaka ya waaye xatta la garab yay def sax amul benn garab buy waddalu xob lu dul xam na ko xattaale pepp yay def amul pepp buy daanu ci suuf lu dul xam na ko mun nañu it maa leen di nelawal ci guddi maa leen di yee ca bëccëg la ngeen cay fàggu xam naa ko boole naa leen ak ñu leen di wattu képp ci yéen bu deeyam jotee daan ko faat ca duñ ca tardé benn minute duñ ca yokk benn minute borom boobu xamal ñu it ne mooy ki nga xam ne heure bu ñu nekkee ci tiisi jéeri ji wala ca la nga xam ne mooy lëndëmi géej ya moom la ñuy woo moom kese mu daal dañuy xëcc li ci loolu ca moo ne day beneen tiis bu dul boobu it moom dong moo ca mën a xettile loolu lañ mujjoon jàng alarba jeewees amma suñu bindu tey borom boobu ne ab yonentam waxal mbooloo mi ne yàlla moomu dong am kattan ci indi mbugal mu jóge ci seen kaw te li ko suñu borom ne xul loolu day woñe ne ndekete yonenti yàlla bi day amul kattan ci lor kenn ci jaami yàlla yi kattanug lor ci loxo yàlla rek la nekk yàlla moomu nag su ko neexee mu indi mbugal moo xam ni ci seen kaw luy jóge dal ci seen kaw loole am na ñu bari ci xeet mu mbugal leen ca day catastrophe bokk na ci loo xam ne won nañu ko yàggul dara matagul ñaari fukki at di 11 septembre 2001 réew mi nga xam ne nee nañ moo ëpp doole ci kaw suuf muy États-Unis réew miñ gën a protégé ci kaw suuf ñu am li ñuy tuddee ceinture missile patriotique yoo xam ne amul benn luy jóge feneen di ñëw lu dul intercepté nañ ko suñu borom yàlla ba mu leen bëggee toroxal lan la def am na ay jaam yu mu tàggat ñooñee la tax ñuy def yàlla xam mais résultat bi àddina bi yépp seetaan mooy dëkk boobu jàppoon na mooy première puissance mondiale et que kenn mënu ko attaqué fenn suñu borom jëli mbugal ci suuf ci ci ci am réewam yëbb ba ci kaw asamaan tasaare ko dóor ko seen kaw au minimum trois mille personnes dee nañ ci loolu loolu mbokk kàttanug yàlla la borom bi mu ne kon su ma neexoon indi mbugal mu bawoo kaw asamaan wala mbugal mu jóge ci kaw suuf te loolu itamit won nañu ci lu yàggagul dara matugul ñaari fukki at tsunami bi amoon fii ci Indonésie ak dëkk yi ko wër benn vague boo xam ne yàlla xam ñaata millions de tonnes ci ndox la yàlla yëkkati ci benn minute xëpp ko ci doomu aadama yi mu rey plus de trois cent mille personnes loolu ci kattanam jëlla wa ala doonte ne mbokk yooyu c'est des petits petits petits mbugal waaye mbugal gi yàlla di wax fi du loolu ndax suñu borom bi mu waxee ne am naa kattan indi mbugal jow ko asamaan yonente bi alayhi salaatu wasalaam dane ko yàlla ñu ngi muslu ci yow ci loolu yàlla subhanahu wa taala nangul ko loolu xeet bi ba ila yawmiddin yàlla du jóge kaw mbugal kaw asamaan alag leen comme ni mu alagoon xeet yu jëkk yi mu ne walla ma indi mbugal bu jóge seen suuf boo xam ne suuf xar wala lu yàlla indi faagaagal leen yonent bi naa ay yàlla ñu ngi muslu ci yow suñu borom teggi loolu mu ne nag wala boog mu séddale leen ay parti ngeen doon ay noonu mu jël mbugala ñi teg ci ñi yonent bi alei salaam ne haza ahwan lii day moo gën a yomb comme natt du ñàkk yàlla looloo gën a yomb looloo tax mbokko xeet bi mboole musiba yi xeet yi jiitu yi defoon xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam def nañ lu ko gën a garaaw téeméer yoon maa ngi ci jublu ummatu da'wa xeetu yonent bi ñaari xeet la xeet bi nga xam ne yonent bi dafa ñëw pour woo leen ca mooy képp ku juddu gannaawam ba ila yawmi din mu am lu ñu tuddee ummatul ijaaba mooy xeet bi nga xam ne ñoo ko wuy si ca mooy ñi nangu saxal laa ilaha illallah muhammad rasulullah yal na yàlla boole ñu ci ñooñu amma xeet bu nga xam ne mooy xeet bi muy woo ba ila yumi diin suñu boroom du leen boole mukk alak ak lu ñu mën a def amma nag su ko neexee mu indi séddale ay noonoo ci diggante jaam yi mosol leen ay mbugal loolu lim ci def bari na doonte ne ne bokk na lu gën a marqué adduna bi muy li ñuy tuddee première guerre mondiale quatorze ba dix huit deuxième guerre mondiale trente neuf ba quarante cinq nga xam ne adduna bi daanaka réew yépp a nekkoon ci ak rayante kenn xamul ñaata ci ay millions yoo xam ne ni ni doomu aadama yi reyante nañ ko du mbugal mu jóge kaw asamaan du mbugal mu jóge suuf du ne gaynde yi ñu leen attaqué wala lan mu leen attaqué mais nit mooy rey moroomu nitam te loolu it da ngay gis ne mooy li sax ba tey soo demoon Syrie tey la ëpp la fay rey ay Syriens ñooy rey ay Syriens boo demee Libye ay Libyens ñooy rey ay Libyens demel Irak ay irakien ñooy rey ay irakien demal yemen ay yemenien ñooy rey seeni mbokk loolee mbokk nattu la boo xam ne ci nattu borom bi la jalla wa ala heure bu amee nag la koy waral mooy nit ñi sori yoonu yàlla yàlla indi ab yaram ngir delloo leen gannaaw wala nuziqannahum min al azabi al adna dun al azabi al akbar laallahum yarji'un su ko defee ci xeex yooyu léeg-léeg dana am ñu nekk ci dëgg am ñu nekk ci ay caaxaan ñoo xam ne bu ñu dee ci loolu yàlla mbugal leen doonte ne léeg-léeg it muy natt boo xam ne ku ne day jàpp yaa nekk ci dëgg te loolu moo daloon saxaabatul kiram fi yonent bi alayhi salaam jógee Aboubacar jóge fi Omar jóge fi ci jamono yi Ousmane fitna tabbi na ci jullit ñi fitna boo xam ne law na ba suñ jamono yi tey lu bari ci sahaaba yi reyante waaye ñoom ba ñuy reyante nott la bu bawoo ci yàlla ku nekk ci ñoom daa jàppoon ni lii mooy dëgg yi nga xam ne moom la yàlla bëgg loolee kon mooy fitna bi nga xam ne suñu borom yàlla da koy wax ci ay jaamam muy wane itamit ne doomu aadama war nay moytu kéemtaleel kattan booleeg ñaan yàlla ci lépp loo xam ne day teqale digganteem ak mbokk jullitam wallahi mbokk lii mën naa yegg ba ci ab dëkk mën naa yegg ba ci ak kër ba da ngay gis ñoo xam ne nii ay ñu bokk ndey bokk baay fitna dox seen diggante fitna yu garaaw wala ay doomi baay wala ay leneen wala ay leneen lii ci nattu yàlla la boo xam ne ku ne war naa moytu la koy sabab ñaan yàlla mu musal ko ci borom boobu nag subhanahu wa taala ni nii lay teqalee ay aayaam léeg-léeg mu woo nit ñi ci tiital leen léeg-léeg mu woo nit ñi ci xemmem loo leen léeg-léeg mu woo nit ñi ci wool wat woon leen kattanam mi ngi noonu ngiree doomu aadama yi mën a comprendre la nga xam ne mooy li yàlla bëgg ci ñoom te it loolu lu néew ci jaamam ñoo am loolu borom boobu nag subhanahu wa taala ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa xeet bi day weddi nañ alquran ji te moo ne alquran rek kay dëgg te jàppal loolu mbokk julit wax yi nekk ci kaw suuf day bari na heure boo taalee rajo beeg télé bi yaa ngi dégg wax yu safaanoo lool waaye xamal ne li dëgg mooy wax joo xam ne daa dëppoog aayay alquranul karim bépp wax ba safaanoog alquran nga la way xamal ne du dëgg ak kuñ li wax moo ko wax nag huwa alxaq borom bi nee leen man day du maay leen di garde du ma leen garde ndax jaamu ngeen yàlla ak jaamuw leen yàlla mënuma leen a fay mënuma leen a mbugal ki ngeen amal affaire mooy seen borom lastu aleykum bi wakil seen borom boobu xam leen lum leen wax da ngeen ko mës a gis li kulli naba in mustaqar bokk na la mu waxoon ci kaw suuf dana dimbali ab yonentam dimbali na ko sa yoxu zamul jamoo yu wallu na dubur sa noon yi da nga leen dàq ñu wane gannaaw def na ko keroog xara badr gannaaw ba it la nga xam ne doomu aadama yaa ngi ciy wuute muy allaaxira la chaque ne bis dana mës a ñëw mu daal di doon loo xam ne lu teew la lu teer la doomu aadama yëpp bokk dund borom boobu daal di cay dolli ne heure booy dem bay gis ñoo xam ne ñi ngi xuus ci samay aaya mbokk ya xuudu mooy ni olof di waxe xuus rek xuus mooy nga gis am ndox ndox mi xamul nekk ci suufam nga xuus ko mën ngaa dugg ci pax mën ngaa dugg ci lu nekk ndax xamoo fay teg sa tànk loolu it mooy li ëpp ci doomu aadama yi dañuy wax ci diine wax joo xam ne teguñu ko ci benn dalil lu dul di xalaat rek di wax te lu bari lañuy wax shirk la bidaa la safaanoog alquran suñu borom nee na boo gisee ñu mel nii ngal la waay du mooyu leen bul nangoo bokk ci seen waxtaan loolu nag mbokk jullit da ngay gis ne mooy le minimum la ñu yàlla sant doonte ne la waroon mooy nga xamal leen ni li ngeen di wax ay shirk la li ngeen di wax tegu leen ko ci dëkk li ngeen di wax nangam nangam delloo leen ci raison amma boo ragalee ne soo demee di wax ak ñoom loolu dana jur fitna bu gën a garaaw loolu jëlal say dàll nga daal di dem lii la ñu suñu borom yàlla sant ba baa nga yëg ni ñi ngi wax ci leneen loolu it mu lay won ne sa dëkkandoo la sa collègue de service la sa mbokk la mi ngi wax ay shirk ak bida islam waxu la nga dagg ko à cent pour cent waaye l'islam nee na daal bu dee mi ngi ci waxam yooyu muy wax yow ca mun loo nekk di ko tere bul toog di ko déglu looloo tax jataay booy toog la yàlla moom ñu koy jox keneen jàpp ne keneen mën na dogal keneen mën na xattali nit ñi keneen mën na sobi nit ñi ca loolee yow amoo fitu daal di koy dindi loolee nga la waay jëlal sa dàll nga dem suñu borom nee na ci beneen aaya ca suratu nisa boo leen wala fala taqudu ma'ahum innakum idan misluhum heure boo toogeeg ñi mel noonu nga toog bàyyi leen ñiy wax seeni shirk seeni bidaa nga toog yii na yem ca noonu ko yàlla waxe noonu la ko tubaab bi waxe tubaab bi nee ne kii ne di rien consent heure boo toogee ci mbooloo ñuy wax nga ne pat la ñuy wax engagé na la looloo tax suñu borom ne jógal nga dem ba baa ñuy wax dugg ci beneen wax borom bi subhanahu wa taala ne seytaane sax mën na la fàtteloo waaye foo fàttalikoo rek ci ñiy wax yi bokkaal yi waxu shirk yi ñuy wax te mënoo ci dara jëlal say dàll nga daal di dem loolee bul toog ak ay tonkat yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal nañu toog ak ko baax ak toog ak tooñkat ñi ngi mel ne toog ak kuy jaay parfum wala nga toog kuy upp ay mbaar te tëgg ga mooy ñi upp seeni furno ca mooy ko baax booy toog ak moom yàlla subhanahu wa taala da lay gërëm yërëm la wallahi suñ jataay bi yàlla na ko yàlla nangu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na malaaka yi daañu wër ba gis jataay boo xam ne ña ngay toog di tudd yàlla bu ko defee xadis ba gudd na suñu borom laat leen sama jaami li leen tax a toog ñu naa ngi day ut sa ngërëm ah waaye ñoom lu ñu sàkk ci loolu xanaa ah bëgg nga tàbbaleen àjjana rek ndax mës nañ koo gis gis déedéet waaw bu ñu ko gisoon nag ah kon di dañ gën a fa fagaru ñoom lu ñu ragal sawara ndax mës nañ koo gis déedéet waaw bu ñu ko gisoon ah kon di dañ gën a moytu borom bi ne leen maa ngi leen di seedeel ne man mi tax ñu toog day bëgg naa leen danaa leen tàbbal àjjana danaa leen musal ci sawara baal naa leen seeni bakkaar malaaka yi ne ah sëñ càmm mi de moom ñëw na waaye moom lii gaa yi def indiwu ko de daa ñëw fekk ñu toog mu toog ak ñoom suñu borom ne boole leen ko ci ñooñu képp kuy nangook ñoom doo texee di mbokk gis ngeen ko résultat toog ak ko baax la mu koy jural noonu itamit la islam tere gépp ak tere fépp fu ñuy defelu xaram bu fa toog képp koo xam ne nii da ngaa toog ca place bu ñu indi sangare bi teg munoo fee jëla sangare bi jëlal say dàll yow nga dem bul toog ak ñu naan sangara bul toog ak kenn koo xam ne la muy def dafa xaraam ca mu bokkit natt bu rëy rëy bu ñu yàlla nattoo nga la way julit bul toog mu ko jàkkaarloog ab télévision ñu cay wax ay shirk jigéen ñi futteeku def yaramu neen góor ak jigéen di jaxasoo ci yoo xam ne yu xaraam la nga toog yàgg a toog di ko seetaan wallahi day dem ba dootu la naqaree ci ana bari kër jullit ñooy dem ñépp a jàkkaarloog télévision yi yu garaaw a garaaw di ci génn mais yëguñu sax ne am na lu xew lu tax ndax xol ya dem na ba maas ci ba xomak na ci moo poto yi taxaw la ñemele di mbir moo xam ne yal na yàlla dundalaat xolu jullit ñi loolu it mbokk kon mi ngi noonu fexeel ba heure boo solee sa dal fexeel ba heure booy toogal ña ngay toogal na doon jullit ñu baax toogoog ñu baax dana la jëriñ àdduna jëriñ la boo alaxira moytul ma toogoog ñu bon ñuy wax lu bon loolee mën na la lor àdduna mar mu lor la alaxira yal na yàlla defal ñu afa wala afiya mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وللذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من لله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بارك الله فيك suñu borom mu ne wa ma ala alladina yattaquun nekkul nag ca kaw ña ragal yàlla min xisaabihim min cheyin ca réglé ga ñuy réglé nit ñu bon ñooñi amuñu leen nonu leen cay war walakin zikra laallahum yattaquun waaye loolu ak fàttali la ngiree ñoom ñu ragal yàlla ba bàyyi wax yooyu wa zari allazina taxasu diinahum laiban wa lahwa bàyyil ma ñi nga xam ne dañoo jël seen diine muy po ak puukari ay lu leen di itteel ca jaamu yàlla wa garrathum alxayaatu dunia ñooñu nga xam ne war na leen dunduk àdduna gi wa zakkir bihi waaraateel ci alquran ji fàttelee ce an tubsala nafsun bi ma kasabat ay an tuxbasa nafsun doomu aadama bu nekk ñu daal di koy jàppee ca la nga xam ne moom la jëfoon wa lay laysa laha min dunillahi waliyun wala shafia du ko ñeel gannaaw yàlla ku koy féetewoo wala benn aji ramm joo xam ne moo koy ramm wa in taadil kulla adl bu nekkee di jéem a jotoo ci bépp façon jot mi ngi noonu laa yuxaz minha kenn du ko jëlal ca njot yooyee ci dara ulaika allazina ubsilu bi ma kasabu ñii day mooy ña nga xam ne jàpp nañ leen alege leen uhliku bi ma kasabu ca lañ fagg woon lahum sharabun min hamim dana leen ñeel ak naan gu jóge ci ndox mu tàng jir wa azabun alimum bi ma kaanu yakfurun ak mbugal mu tar ca lañ nekkoon di ko weddi mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ni soo gisee ay nit nekk di xuus ci ay shirk ngalawaay bul toog ak ñoom mu ne nag wax yu bon yooyu ñuy wax yow mi nga xamee ne gëmuloo ko yowmal qiyaama kenn du la ko xisaabi jóg gi ngay jóg di leen fa bayit loolee dana doon loo xam ni lu leen mën a ragalloo yàlla la te itamit bu dee ne nit ki day wax ay waxam yow wax yi mënuloo ko supporter nga daal di jóg bàyyi ko fa loolee mën na ko delloo gannaaw ba mu xalaataat moom li mu wax mooy lan mais bokk na musiba bi ñu yàlla nattoo Sénégal ak feneen benn waay day créer ay xuraafaatam ay caaxaanam léegi nag woote am xew fu ne mu yónnee fi invitation gaa yi ñoo fees dell ci loo xam ne man nga waat ci yàlla ni ñii fi daje gëmuñu li muy wax waaye comme ragalante gannaaw bi ñoom ñëpp dañu ñëw teew masalan da ngay suñu génn ne man sama maam yenente bu yàlla la mbooloo mi ñëw mu wóor na ne ñii fi daje quatre-vingt-dix pour cent gëmuñu li li li gaa yi wax waaye nag comme man su ma xewlee mu ñëw mooy bu bu xewlee damay dem loolee kon ñoom lu ñuy jàpp dañuy jàpp ñun lii ñu nekkat lu baax la ndax ñii bi ñu wootee ñëw nañu am déet waaye boo defoon créé woon say caaxaan képp ko baax koo woo ñëwul loolee mën na la delloo gannaaw waaye malheureusement ñi ci tey ñiy def lu bon ils sont mal partis musiba dal na leen ndax kenn tereetul lu bon kenn ñaawlootul lu bon borom bi nag nee na dummóoyu gi ngeen leen di dummóoyu bañ a dem ci seeni ndaje bañ a toog ak ñoom mën na leen a xalaat loo laallahum yattaquun gannaaw ba suñu borom mu ne bàyyil ñi nga xam ne seen diine ca mbokk diine mooy doxalin yéeféer yi athée yi communiste yeeg ñu ngeen xamul ne gëmuñu dara déedéet seen bànneex mooy seen diine mi ngi noonu loolee nga xam ne mooy seen doxalin mooy lan mooy foo ak puukare foo mooy loo xam ne amul benn njëriñ amaa lëhu mën na nekk lu am njëriñ waaye itteel na la ca la ko ëpp njëriñ rawatina bu la itteelee ci jaamu yàlla looloo tax waa ji toppoon ab liggéeyam liggéey lu baax la mais topp liggéey bi ba waxtu yu paase julliwul liggéey boobu lëxwu la toog ak sa njaboot di leen bégal lu baax la waaye ànd loolu ba waxtu yu paase julliwoo lëxwu la moo tax borom bi ne laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum amma laa ib nag mooy loo xam ne foo kese la walla waaye yéen ndaw ñi yéen a ngi toll ci mondial dañoo dem ñu dóor Sénégal Sénégal nibbisi ñu ne alhamdulillah waaye biig xam nga barke bi maa ngi romb benn koñ dégg xale yi nekk ci kër ga yépp yu xondoo ca mooy am ne équipe bu ñuy supporter boo xam ne nii gagné na beneen équipe bi am déet te loolu ngeen gis de waay mooy tey équipe africain yépp nibbi nañu kon lan moo fa des mooy équipe yi ñeneen ñoo xam ne waxuma lu ñuy ay sénégalais mi duñu africain nga gis ñaari xale yu bokk benn kër wala bokk benn atelier kii mi ngi supporter Espagne kii mi ngi supporter France di supporter ay jours yoo xam ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay yéeféer la ñu am déet ñoo attan cee xulu attan cee merente koo xam ne nii bu dugalee biit nga kontaan ci moom di ko bakkoo ci ab yéeféer la boo xam ne gëmul yàlla gëmul yonent yàlla mbokk loolu polo moo xam ne yéen ndawul jëriñ ñi yeewu nga lay loolu bu mu leen yóbbaale yow mi dem ca grand place ba trois heures de temps tapp dem yi bëlut kasa mbokk loolu mbir la yoo xam ne dund gi ni mu seere wallahi ko demoon yee waa armeelu yoof ne leen kay leen delluwaat dundaat un jour àdduna ci ñëwaat ndax jàpp ngeen dañ ko def ca dem yee ba football ba laa kon dund lu cher la wóorloo ko jël di ko yàq ci powum kese wóorloo ko yàq di ko yàq ci lëxwu suñu borom waxul yéen jullit ñi bu leen ko def waaye bàyyi leen ñu koy def loolu yaa wax day wazar bàyyil ñi nga koo xam ne addunaam jàpp ne na por la ko jàppee te mbokk yi fiir yi adduna po lañ ko jàppee yàlla na yàlla yërëm suñu mbokk bi alaaji Fajur Gueye da daan wax ne ñun africain yi day waruñoo topp tubaab bi ndax tubaab bi dañoo liggéey ba am adduna doog nag wootem po ñun ñi ngi toll amuñu dara dañuy dem di yelwaan guddeeg bëccëg kon waruñoo ànd ak ñoom ci po moomu am déet su ko defee yow ndawal julit li la war ci jàng xam-xam li la war jàng sa diine li la war pour nga réussir li la war pour ñu fexe soqali suñu réew yi li ñu war pour développer Afrique wallahi attu nag nekk di tëb di dal di yuuxu ci ay match de football ak leneen lu mën a doon bàyyi leen ñi nga xam ne seen doxalinu àdduna foo rek la ak puukare adduna wor na leen te li ëpp ci yéefér yooyu xalaatuñu alaxira jàpp nañ ni réussite mooy réussite adduna bañ nañ ko ba la ëpp ci ñoom lu ñuy wax adduna daal ñetti yoon ñetti part lañ ko war a def sa journée bi dafa war a am trop huit heures de travail am huit heures de sommeil ak huit heures de loisir juróom-ñetti waxtu yi liggéey la juróom-ñetti waxtu yi nelaw la juróom-ñetti waxtu yi am polo ki jàppe nii àdduna yow nga jàpp ne àdduna tool la booy war a liggéey la àllaaxira ndax war ngeen yem programme war ngeen yem programme looloo tax suñu borom mu ne ñoom àdduna da leen a wor amma yow julit yaay xam ne àdduna jaarukaay la lépp loo fi dajale mooy loo xam ne dana la mën a jëriñ heure boo demee ci sa borom borom bi nag ne kon mi ngi noonu ay yow yonent yàlla bi alxuraan ji waar ci nit ñi bañ mën a dellu gannaaw balaa doomu aadama ñëw doon aji alku ngir lëm liggéeyoon ci képp koo xam ne jaarul ci waraate alquran lu mën a yóbbu alaxira dana ko alak malheureusement nag tey ji quatre-vingt-dix pour cent ci julliti tey kenn waara te luñ ci alquranul karim mbooloo mu rëy day daje des centaines de milliers daje ñu nekk fa wax fa ba jeex doo dégg ñu ne qaala allahu taala doo dégg ñu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye wax ji yépp bàyyi diw maam diw sëñ diw jeex na mbokk loolu musib mënu ko passé suñu borom defoon yonente bi fa zakkir bil qur'ani man yaxaafu waayit del waaraate alquran zakkir bihi jëlal alquran di waar ci nit ñi balaa doomu aadama di ñëw lam liggéey yoon ci lu bon tëj ko kullu nafsin bi ma kasabat rahina tëj ko yóbbu ko ca la nga xam ne mooy alkaange borom bi subhanahu wa taala ne lu mënoon a jéem a jotoo yàlla du ko ko nangul borom bi nag ne ñoo ñi nga xam ne ñoo jaarul ci waarate alquran ñii de ñooy alku ci la nga xam ne moom lañ fàggu woon la leen fay teeru mooy xamim di ndox moo xam ne tàngaay wa yegg na boo ko tiimee sa deru kanam roccee ko daanu ci biir boo ko naanee mu xot ci sa butik tuuru ca suuf loolee la borom bi subhanahu wa taala wax gannaaw ba ak mbugal mu tar ca la nga xam ne nekkoon nañ jëkk a bokkaale ak seen borom yal na yàlla musal ñu ci loolu waaw قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير jazakallahu xayra suñu borom mu ne yow yonent bi qul waxal ba tey anad'u min dunillah ndax ñun dañuy woo gannaaw yàlla maa la yanfa'una wala yadurruna loo xam ne duñu jëriñ ca duñu lor wa nuraddu ala aqaabina ñu doon ñu ñuy delloo ci suñu ndëggu ya baada is hadaana allah gannaaw ba ñu yàlla jubale kalazi stahwathu shayatin mu mel ne kooku nga xam ne sànq na ko seytaane ya fil ardi mu nekk ci kaw suuf xayraan doon koo xam ne ku gëlëm la lahu asxaabun yaduunahu ila alhuda ñeen na ko ay àndandoo yu koy woo ci yoonu njub itina naan ko ay waay ila alhuda itina yóbbu ko ca yoonu njub ga naan ko dikkal ñu qul inna huda allahi huwa alhuda neel njubug yàlla day moom dong mooy njub wa umirna li nuslima li rabbil alamin ñun julit ñi nag dañoo digal ñu jébbulul borom bindaafan yi wa an aqimu salaa digal nañ leen it ngeen taxawal julli wattaquuhu ci ngeen ragal yàlla wa huwa alladi ilayhi tuhsharuun ci ci yàlla moomu rek lañ leen di dajale jëme yowm alqiyaama wa huwa alladi xalaqa alsamawati wal ard mooy ki bind asamaan yi ak suuf bil xaq ci dëgg wa yowma yaqulu kun fa yakun bis ba mu naan amal day daal di am qawluhu lxaq waxam rek kay dëgg wa lahu lmulk yowma yunfaxu fi suur dana ko ñeel moomeel ga yépp dana ko yel ñeel nguur ga bis ba ñuy ëf ca béjjén ba alimul xeybi wa shahaada mooy ki xam lépp loo xam ne kumpa la moo xam lépp loo xam ne lu feeñ la wa huwa alxakimu alxabir mooy aji xereña ji mooy ki ñàkk kumpa mi ngi noonu bokk xam leen ni kaw suuf ba ko yàlla sosee ba tey ñaari wootekat ñoo fi nekk mooy ñi yàlla tànn ñu ay yonentam ak boroom xam-xam yi jële ca ñoom di woo nit ñi jëme leen ci yoonu yàlla ak ñoo xam ne nii shayatin yi dañu àndal di woote jëme ci yoonu réer ñooñu nga xam ne jot nañoo nekk ci yoonu yàlla ñay woote ci yoonu réer du ñu découragé ci ñoom bu dégg bëccëg ñi ngi def ay pexe ngir delloo leen ci seen diine te loolu suñu borom moo ko wax wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataau yéeféer yi duñu noppalu duñu tàyyi guddeeg bëccëg ngiree fexe ba génne leen seen diine bu dee am nañ ci kàttan suñu borom nag ne ne yow yonent bi nee leen ndax ñun daañu wëlbatiku di woo keneen ku dul yàlla ndax ñun dañu woo koo xam ni amul lu ñu njëriñ muy benn amul lu ñu lor ay mënuñoo teggil lor ñuy delluwaat gannaaw di yaakaar keneen ku dul yàlla gannaaw ba ñu yàlla jubalee te loolu mooy musiba bi gën a rëy ci kaw suuf yàlla na yàlla musul ñu ci bokk li gën a rëy lu doomu aadama yi am mooy tawxiid soo demee ba sa xol bii nga gëm ni yàlla mi ma bind moom dong di ma dundal moom dong fas yéene maa rey moom dong fas yéene maa dekkal moom dong moom dong ma mën a jëriñ adduna ak alaxira keneen ku dul moom moomulu ma dara lii dugg sa xol ba pare nga wëlbati ko waat nag yaakaar keneen ku dul yàlla dalay xettali loolu mooy musiba bi gën a rëy moo tax ñu ne ndax ñun daan dellu gannaaw gannaaw ba ñu yàlla jubali mel ni koo xam ne seytaan yi ñoo ko sànq sànni ko ca àll ba mi ngi noonu am na ay ña nga xam ne ñooy ay àndandoom naan ko diw foofu nga jaar du yoon bi de yoon baa ngi fii waaye fekk ne xolam ba nekk na xolu ko gëlëm ndax gaa yi mas ngeen xam luy gëlëm mi ngi noonu gëlëm nit ki bu gëlëmoon tey jii xam na police waaye boo ko naan police baa ngi nii pour moom da nga naan ko police baa ngi ak a pes ndax léppay wërbati ko ci moom looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni day nekk xayra gëlëm na jaaxle na ñi ngi koy woo mais nanguwul comprendre woote googu ndax seytaane yi nekk ci kawam di ko wax guddi ak bëccëg te loolu mbokk boo mel nekkee ci réew yi mel ne suñu réew yi daani ko loolu dala yomb lool mooy woote ci wàllu caaxaan wallahi bari na bari waay goo xam ne jiggi na dayoo su ko defee yow bu dee amoo ak sax yàlla dimbaliwu la da nga mos a dem mën a moo ne day waaw mën nam gars yi dañuy wax dëgg la comme bukki ba mu sosee ay sosam ba pare mujj ko gëm ala kulli xaal suñu borom yàlla nee na na ngeen xam ne njubugu yàlla day mooy ak njub ca mbokk njubugu yàlla mooy alquran ak sunna leneen lu la way mën a wax kaay ma yóbbu la ci jaamu yàlla goo xam ne ah moo gën a gaaw la alxuraan ak sunna di woote loolee ku la ko wax dalay nax bokk na ci lii pilier jaamu yàlla yooyee mooy taxawal leen julli ci ragal yàlla képp koo xam ne nag nee na la mën naa laa yóbbu ci jaamu yàlla goo xam ne da nga tabbi aljanna te soxlawul ngay julli soxlawul ngay woor soxluwul ngay bàyyi lii yàlla bàyyiloo waaye kaay fexe ba def nangam nangam nangam am ngërëmal nangam nangam rek pare nga mbokk ku la wax loolu da lay nax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni njëbug yàlla rek mooy ak njub te dañoo sant ñu jébbalul ko moom mi borom mbindaafan yi mbokk julit dafa war a jébbalu ku jébbaluwul alkaw nga ku jébbaluwul alko nga waaye problème bi mooy kan lañu war a jébbalul dañ ñu digal ñu jébbalul borom bindaafar yi wa umirna li nuslima li rabbil alamin jébbalu googee moom ngay fàttali sa bopp fukki yoon ak juróom-ñaari bés bu nekk da nga taxaw ci kanamu yàlla yàlla iyaaka yow kese naabudu yow la ñuy jaamu iyaaka yow kese nastainu la ñuy dimbali ko dim jaamu wuñu muhammad jaamu wuñu abubakar dimbali wuñu muhammad dimbali wuñu abubakar jébbalu wuñu ci muhammad jébbalu wuñu ci abubakar yàlla yow lañ jébbalul yow la ñuy jaamu yow la ñuy dimbali ko umir naa li nuslima li rabbil alamin dañ ñoo sant ñu jébbalul borom bi ndaafan yi borom boobu nag mu ne taxawal leen julli ca ragal ko te xam ne lu mu yàgg-yàgg dees na la mësa pëkk pëkk sa bàmmeel nga jóg ñu jël la dajale la yàgg jaami yàlla yi taxaw ci taxaw taxawal ci kanamu borom bi borom boobu loolu yéeféer yi weddi nañ ko mu ne yàlla mi digal yi day moo bind asamaan yeeg suuf moo gaa yi asamaan yooyee day tey jii nga xam ne ñàng day daana sànq ñu bari ci doomu aadama yi falilahi alhamd njàng moomee mi ngi delloo scientifique yu bari ci jaamuwaat seen boroom asamaan booba nga xam ne tey bu ñu delluwaatoon ci gannaaw scientifique yi daanañ dem di gis naan gis nañ ci lu jege ay deux cent milliards ci ay galaxie année bi 2017 bi am na ñu ko yóbbu ba 2000 am na ñu koy yóbbu ba ay 7000 milliards ci galaxie te benn galaxie bu nekk lum bon bon dana ëmb deux cent milliards ci ay biddiw ci biddiw yooyu am na ci yoo xam ne ëpp na suñu suuf si plus deux milliards de fois moo gaa yi ndax kon kàttanug yàlla damaa dama na koo xam yàlla mi bind asamaan yooyee nee na maa leen di dekkal yowm alqiyama ilayhi tuhsharun huwa alladi xalaqa alsamawati wal ard ndax ki wares na ko weddi moo tax mu ne la xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nas et yéen ñi weddi ak dékki bind ko asamaan ak suuf moo gën a màgg gis ngeen huwa allazi ilayhi tuhsharuun borom boobu nag subhanahu wa taala daa di ne mooy ki nga xam ne lépp loo xam ne bis bu ko bëggee danaan ko amal mu am ca mbokk sa borom mi ngi noonu lu la jaaxal ñaan ko ko tiis wu la jaaxal delloo ko ci moom lépp lu mu bëgg mu am bés bu ne amal rek day am lépp lu mu bëgg mu teggee ko bu ne kun fa yakun waxam rek nag mooy dëgg adduna bii day moo ko moom waaye am na lu mu ci sidd ay jaamam ba tey ñu naan Sénégal diwe fi dogal Mauritanie diwe fi dogal nangam ak nangam amma alaxira mboole mi nguur ci loxoom la koy yor kenn du dogal ci boppam dara kenn du dogal ci keneen dara looloo tax jàng nañ ci gannaaw borom bi subhanahu wa taala ni waaral doomu aadama yi bala ñu ñëw ci bis boo xam ne nii laysa lahu min dunillahi waliyun wala shafia allaxira amul kenn koo xam ne da ngay daw xettili ko ci moom mu xettili la muy wali allaxira amul kenn koy dem ci moom ñaan ko ngiree muy dem ci yàlla mu mu xettili la muy ashafia bal suñu borom yàlla lillahi shafaatu jamia même jaam bu mu bëgg a xettili moo lay xettili directement wala mu woo jaam bu ko neex tereele ko ne ko ñaan ma mi xettili diw waaye amul kenn kuy ñëw ci yàlla ne ko yàlla baal sama taalibi bi yóbbu yóbbu ko àjjana baal sama baay bi yóbbu ko àjjana baal kii yóbbu ko musal ko ci sawara déedéet mboolem xettali mboolem ramm lépp ci loxo yàlla jalla wa ala kese la nekk borom boobu nag nee na mooy ki nga xam ne nii moo xam li nëbbu moo xam li faddu mooy alxakim ca moo di ne alaxira ña yeyoo jalla wa ala mu teral leen ñoom ñëpp xam na leen dara réeru ko ci ndax lañ doon jëf nit ñi di ko seede muy shahada ak lañ doon def ci biir kenn yëgu ko yàlla mu ne lépp seede naa ko moo tax borom bi subhanahu wa taala ni mooy alxakim alxabir mbokk lii lépp lum ñuy jàngal ngallawaayi gëmal sa borom bu ko bokkaaleeg dara wóorul sa borom bu ko bokkaaleeg dara jàngal ay ndigalam taxaw ci sa kémtaleel kattan moytul ay tereem képp koo xam ne nii day sax na ci lii yàlla dana ko féetewoo yàlla dana ko teral àdduna ak alaxira yàlla na yàlla boole ñu ca boole ci bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax julit mën na tàggat yaramam ci wàllu football naam jullit mën na tàggat yaramam ci wàllu football su dee ne football ba nekkul loo xamee ni nii dañ naan dañuy teg kii gañe kii perte nekkul loo xam ne nii dafay jël seen waxtu julli nekkul loo xam ne nii it dañ cay génne suñuy pooc loolee mbokk da ngay gis ne borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci pooju góor awra lam du awra da ci gën a digg doomu mooy dafa am ñu tudd awra mughallaza ak mukhaffafa al mughallaza mooy la ñu taral te mooy fi culotte bi di tege awra bu ñu woyefal mooy fa nga xam ne mooy di sutu pooj ba donte ne ni bépp góor boo xam ne nii ak kersa mi ngi ci yow loole wuroo jël say pooj di ko génne tubaab bi moo ko rafetal ci ñun comme ni mu rafetalee ay xale yu jigéen sol sili bi kese di def nage di fii ci piscine yeeg yooyu ay jullit ngay fekk ñu toog di ko seetaan il trouve ça très normal parce que dañ ñaan si di sport yooyu yëpp daal kon bu dente ne yow fex nga ba mucc ca ay ndaw dara nekkul ci ñu tàggal seen bopp ci football wala yu deme noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam naam naam xam na bi góor bi jéem na sàkk soxna si meen yàlla sottalu ko jéem na jéem mu ngi histoire bi internet bi dafa am wax bu ko ndaw si wax moom mu moo comprendre ci ci biir dafa am wax bu ko ndaw si wax daal am na mu ko wax ba tax mënul àgg ci moom amoo fekkee ci yow la ñu comme
ala kulli xaal ndax bu ñuy wax ci sooru ibrahim alayhi salaam bi mandeeg saara te di romb égypte ca garde yi na ko kii nga àndal ko mu doon moo xam ne su ne sama soxna la dañ koy rey mu ne sama sœur la ñu ne ko kon kii moom da nga koy may buur bi ndax buur bi moom soxna bu rafet bu nekk il faut ñu yóbbul ko ko bi mu demee lan la saara tax ba mucc ci moom la chaque ne dafa ñaan yàlla musul ko ci moom rek jamono boobu it ibrahima alayhi salaam mi ngi nekk di julli moom it ngir yàlla musal soxnaam ci say say boobu loolu tax ba riwaay yi nettali dañ ne fu buur bi jógee booba firawna xewagul fu buur bi jógee jëm ci moom rek dafay mel ne am na lu ko téye ba mujj mu woo garde ne leen kii ngeen ma indil xawma nit la xawma jinn la bàyyi leen ko mu dem ca la ko joxe ay teraanga mu fassiru ne yi leen nii ñu ne ca la ko booleeg haajara ñu ngi noonu waxi ci waxi xaw na bari waaye daal la chàkk ndax am na wax spécial bu sarata wax lañ cee gis rek wallahu subhanahu wa taala alam mooy ñaan na yàlla subhanahu wa taala musal ko comme mariama keroog bi ko jibril dikkalee ci melokaan bu taaru lan la mariama wax mooy nanga maa ngi muslu ci yàlla ci yow auzu billahi minka in kunta auzu bi rahmani minka in kunta taqiya maa ngi ñaan ci yàlla borom yërmaane bi musul ma ci yow bu dee nekk nga ko ragal yàlla jibril nag xamal ko ne man duma ko bon dama ñëw ngir mission bu bawoo ci yàlla li nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah banque boo xam ne ala kulli xaal mbokk bokk na ay nattu yoo xam ne nii yàlla nattoo nañ ko suñu dund muy banque yi nga xam ne la ñuy jëfe mooy riba la liñ ci wax daal mooy ab julit heure bu ko yàlla mayee mu tànn na tànn bi ñu liggéey buy liggéey bu dul liggéeyu banque ña ci yàlla nattoo ñu nekk ca nañ moytu bokk ca ñuy def transaction ya nga xam ne riba bu wér lay jëfandikoo ca it di ñaan yàlla jéggal leen di ñaan yàlla pexe am leneen lu dul loolu lii daal mooy la ñuy wax ca wàll googee ndax xam ngeen ne banque ñaari wàll la am na côté yu bëri yuy def riba am na yoo xam ne ñu def dagan la waaye borom xam-xam yi dañ ne maadaama benn système la loolee ab jullit daa war a moytu di ci liggéey ña ci ña ca duggagul daal nañu seete leneen ña ca jot a nekk nañuy jéggalu yàlla ca ji ñaan yàlla fagaru seen kemtalal kattan ñaan yàlla jéggal leen ca bu ñu amee leneen ñu bàyyi loolu la ñuy wax ca wàll googee wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal kon mbokk jullit nañu dayloo loolu waaw ñu mujj ci bokk bi rek waaw bismillah waaw ala ala kulli xaal ay photo yu jigéen yi ñuy jaay ñuy nekk ci kaaba gi ñuy nekk jigéen ñi taaru gaa yi di ko jël di ko taf ak yu demee noonu bokk nañu xam ne bépp photo boo xam ne nii dañ caa wone yow ay jigéen yow jullit bi amoo lenn loo cay jànge loolee nekkul looy war a jël di ca bànneexoo ngiree ak lu mën a doon kaaba ga moom kaaba ga la la chaque ne nit ñi xam nañ ko amaa nag jigéen ba ñuy woneeg taaram muy tàll ay loxoom di ñaan loolu amul la benn njëriñ su ko defee daal photo yi mel noonu moom jullit war naa mooy ci di ko jënd wala di ko taf ci néegam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam mi ngi noonu subhanaka allahuma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk